Malika Chanel tey dañ leen doon présenté seen benn émission bu bees bu tudd toog teg waaw tey nag ñu ngi ci sujet mbaraan xale yu jigéen yiy mbaraan gëmuñu seen bopp lan moo waral mbaraan bi sama gars yi ñu ngi leen di siyaar. ñu toll di yéen ñëpp ah. ak jigéen waaw sujet bi sujet bu am solo la quoi mooy mbaraan muy si xale yu jigéen ñi gëmuñu seen bopp quoi. loolu dëgg la ndaxte bëri na léegi si dëkk bi quoi jigéen ñi lu tax ñuy mbaraan man dama jàpp ne dañoo gëmul seen bopp wala amuñu euh, objectif ndaxte jigéen pour man soo demee ba am benn 17 ans rek da war a am objectif ne lii laa bëgg a def mais mbaraan bi des fois manque de moyen la wala ñu ne kii kat fii mun naa fi tekkee man pourquoi pas jigéen ñi mënuñu gis benn gain gis kii baax na jikko jikko bi nag laa bëgg quoi ñu moom xool jikko ba pare. dem génn ak nit ki am relation ak moom xool nu ñuy fondé famille mais léegi jigéen ñi xaalis bi la ñuy gën a topp quoi te xaalis ku ko topp moom mbaraan rek mbaraan rek te góor ñi sama mbokk góor ñi ñoom ñoo gën a garaaw ñëpp ndaxte ñoom pour affaire mbaraan du garaaw mun nga leen mbaraan lekk si ñoom cent mille ndaxte suba mun nañ ko amaat waaw pour yàq la dem seen yoon après kon boog jigéen ñi mbaraan bi pour man nañ ko bàyyi quoi xool lu ñu bëgg moo gën. ndax tam bëgg benn greffage wala benn tissu loolu jaru ko quoi. loolu laa am pour def euh, pour waxagum ni euh, après ñu xoolaat. ngeen sama gars yi daara lu wax waaw Aïda léegi jëlal parole faute bi ci góor ñi la wala ci jigéen ñi. ah tamit benn instant kii xaw naa d'accord ci lu mu wax parce que xale yi jigéen ñi tamit faute bi tamit. am nañ ci part de responsabilité mais góor ñi tamit am nañ ci part de responsabilité parce que tamit euh, jigéen nga même bu fekkee amoo moyen sax man bëgg naa jigéen nga gëm sa bopp. nga liggéey. Mhm. loo am lu ne nga defal ko sa bopp mais bu yaakaar góor. Mhm. man damaa paar man yaakaaruma benn góor ci àddina. man damay liggéey lu ma am ma defal ko sama bopp. dëgg la nga man. Mhm. loolu laa gëm mais tamit góor ñi am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom tamit da ngay seq ñoom relation nga sérieux mhm. nga seq ñoom relation mais ñoom du ñu jàppee relation bi sérieux mhm. comprendre nga. ñoom de oh yow li ku jigéen ki li nga war a def ñoom ku góor ki ñëw yow yaa def loolu. dëgg la comprendre nga. mais loolu tamit xale yu xale jigéen ñi ñoo gëmatul seen bopp. merci man pour man jigéen da ngaa war a gëm sa bopp. ok man loolu laa mën ok joxal paradise para jëlal nga wax si leneen wax ni maraan mi. waaw ah, maraan moom fii moom xale maraan moom da yow loolu dalaa neex rek. Mhm. ah man paradise moom kenn moom maraan damaa xam sama bopp. waaw pourquoi nga ne yow kenn du la maraan yow yaay kan. man maay kan man maay paradise nga man maay kan. dañ lay maraan xale jigéen yaa ngi nii namuñu dara de. yàlla man kenn du ma maraan ku ma maraan daf maa neex wax. dalaa neex waaw. waaw kon la. salige man su ma xamee ni yow bëgg nga ma. Mm. moom jaral nga ma lu ne. waaw ah, mais bëggoo ma pare di ma maraan. man pour man góor ak euh, jigéen boole seq relation nu mënti mel yow am nga lu la war nga def ko ci ko jigéen ki. dëgg la comprendre pour man mm-hmm. nit ki boo ko bëggee war nga koo mën a defal. Mm-hmm. ak moom mu am moyen ñàkk am mooy war ngaa war a sa xol mën na laa may nga yëkkati lii nga defal ko. Mm-hmm. parce que loolu la war la seen diggante yéen ñaar mais man daal gëmuma mbaraan daal mbaraan daal gëmuma ko. fidélité nga gëm waaw dëgg fa man Aïda man foofu dama fay wax ne affaire bi complément complement la ko quoi dañuy compléter ñoom ñaar. te ku si nekk jàppale sa moroom la quoi mais jamono yi dañuy toll foo xam ne léegi jigéen da naan góor ma may defal pourquoi loolu pour man jigéen ki mën na am problème góor ki jàppale ko góor ki am problème jigéen ki jàppale ko ndaxte ñoom ñaar la quoi ku nekk di jàppale sa morom mais ku nekk su toogee rek ne kii moo ma war a mën a jàppale loolu après mbaraan moo fay am waaw man loolu laa gis quoi ku nekk war na mën a jàppale sa moroom te tamit kenn warul toog naan kii diw may ma lii jigéen ñi comme ni koy defee léegi. may ma jënd greffage may ma jënd jesner mais loolu soo ko defee rek yàq nga relation quoi foofu mbaraan mu ngi fay commencé am te kook su la ko mayul yaa ngi ji feneen pour man nit ñi ñoom ñaar ñooy génn waaw mun nañ ku nekk mun na jàppale sa morom loolu laa gis quoi mais ñaan su demee ba am rek mbaraan am na fa loolu laa gis quoi. Ah, ok man li ma gis boo jigéen warul ñaan jigéen dafa war a toog dal te bàyyi mbaraan bi mbaraan baaxul jigéen warul mbaraan man loolu laa gis sama dëgg sama gis-gis. ñun jeunes yi ñun jeunes yi xam nga lan la ñu mm-hmm. war a lan la ñu war a gën euh, jàpp aw ma dara amoo dara ñu xeex ba am dara ñun ñaar loolu mooy yoon mais suñu maam yi defoon nañ ko suñu maam yi lu ñuy def bëri na am na loo xam ne lu si yoon suñu maam lu ñuy def ba instant yi Afrique nekk Afrique mënuñu développé mooy loolu kon ñun jeunes bu ñu topp naan suñu maam yi suñu maam am na yenn yoo xam ne baaxul. ñun sax suñu yaay nag dañoo sëyeewut alal. loolu moom yaay. Mm-hmm. sëyeewuñu alal te dañ ne doom moom da ngay xool ci sa loolu moom dëgg la wax nga dëgg foofu jaara nga suñu yaay suñu ñun ak alal. mais jaa danga war a xam ne nag monde bi dafa développé nag vraiment monde bi si boppam moo développé. léegi mais yéen yéen yéen yéen yéen fu mu ne nii ñëpp l'argent la ñuy dund nañu waxante de qu'on se dise la vérité. je suis désolé pour cette jeunesse cette jeunesse quoi. ah fii moom ñëpp xaalis la ñuy war moom ku ne moom dunduma intérêt. non non non c'est pas vrai. non yow ànd intérêt ngay ànd kon yow. non non waxuma la loolu dama leen ku dundu ko. non dañuy wax nii. non non ma yow yow safar yow safar actuellement nii yaw kon su amul su lay defal yow kon doon nekk ak moom yow. safar yow man waaw. ndax nga ne suma lan. safar su amul nii da ngay bàyyi. lu may wut ci moom lan may jox. Ah. <laughs> ko def gis nga ko def intérêt ngay ah, lu Sunkari wax ak ma say mbaraan fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mbaraan fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi waaye man de man xam naa ne man sali mbaraanu ma moom ndax damaa am sama waa ji baax mu bëgg ma mu bëgg mu may defal lu ne góor ñi nag baaxuñu buñ nee góor dafa baax sa bàyyi tax góor ñi dinañ nekk ak jigéen soulagé loola ba nga ñu génn weer la ni géeje loolu mën naa ko parce que parce que yéen la non parce que yéen la yéenay wane loolu yéenay wane loolu gis nga góor il est appelé à avoir quatre femmes yéen da ngeen war a yem si benn góor mbaraan waru leen mbaraan warul leen soo nee leen xaalis moo leen tax ngeen di mbaraan ku am su ma amul xaalis kon mbaraan da ngeen di dëkkee ndaxte xaalis amul amul dara lum leen di indil gis nga mbëggeel bu sax si xol ngeen dund dëgg boobu moo ëpp bonheur foofu ko xaalis. jamono ji mbaraan bi vice versa la. bien sûr parce que non eh, xam nga lu tax parce que yéen a ko njëkke mbaraan ba ñuy wax bu njëkk kan lañ koy wax si jigéen. suñ doon wax mbaraan kan la jigéen lañ doon wax mooy mbaraan. non non man gëwuma loolu peut-être ñi am na ñu leen si fekk je ne suis pas d' accord nag si góor yu mbaraan je ne pas d' fu mu si góor ñi la ëppee sax. non su ëppee si yéen la maa ko gis. parce que yéen a ko nangu. non non nan lañ ko nangoo. non man yow xam naa ne yow yow amoo benn far man xam naa ne yow amoo benn fa yow man mi waaw lu la ci leer. non parce que nu ngay waxee nii da ngay mbaraan. parce que xaalis ku ko bëgg rek da ngay mbaraan. jamais la vie. man bii laa xam xaalis ku ko bëgg da ngay mbaraan man loolu laa xam mais kon yow yow comme no mbaraan la. parce que xam nga mbaraan du question yaa ngi koy def de mais parce que yaa ngi visé xaalis. nga ne non ku may génn sa amul xaalis du question ne visé xaalis sax du question visé xaalis non safar safar su la safar yow nit fowee. justement fu la bëggoon yegg yegg sax. dañ lay fowee parce que. ndax boo leen ñaanee dañuy naan jigéen bi gëmul boppam. ay mi li mu wax mooy dëgg jigéen du ñaan. waa léegi mais nag ku nekk da ngay bi tamit non comprendre pour lan non xaaral rek naar xaaral. non comprendre pour lan moom kii am na dëggam kii am na dëggam. non comprendre pour lan moom moom man ñaar je suis pas d'accord. waaw léegi xaaral rek ma ma la waaw la. ne da ngay deewee sa ngor mbaa ñaar mu dul yoon parce que dañu ne loxo bi ñaan foo ko fekk suuf lay féete te ku ku féetee suuf da ngay da sa bopp bu la mayee nga ruus bu la mayee nga ruus kon ñaan benn instant bi doxul. ñëfal sa bopp moo gën ba pare góor yi boo leen ne may ma 5000. guddi fekk ma sama gaale. loolu yëpp da ciy am. non Mbacke Mbacke man man je ne suis pas d'accord je ne suis pas lu nga wax ne ñaan boobu am na raison am. man ma yegali baal ma yegali baal ma yegali sama jigéen ñaan ko. te du la wax fekk ma sama gaale. wala ku la ñaan tey tey da lay may ci mbedd suba soo ko ñaanaatee da lay naan fekk ma gaale. non dëgg la gis nga kii.